source de publicité du Sénégal kon Macky toog ci nguur jarul lenn li te Sénégal dafa am ko xamee mooy li ñu bokk ñun tey soo seetee cousinage entre Joola ak Séeréer dara mënu ko dindi ci laa yoon bi pël noonu keneen ak keneen kon ce discours nous ayons bi nga xam ne mu koy porté moom jël ay nit solal leen ko ñu dem ci tere yi di ko wax il faut mu dañ may wax tous les Casamance bu ñu Macky entraîné dans son piège la Casamance n'a de problème avec aucune autre personne ou ethnie ou région du Sénégal amul fooy dem Sénégal doo fekk ay Casamance yu ko dëkk intégré am ko kër takk sa jabar te soo ñëwee Casamance la la région la plus cosmopolite du Sénégal mooy Casamance Cheikh Tidiane Guèye nii moomu gën a nekk Casamance juddoo Ziguinchor yaroo ko màggee ko il plus Casamance que moi la Casamance xamuñu ethnie xamuñu religion li ko firndeel mooy Abdallah mii yàlla jëlee fi il est né catholique ay waajuram nii catholique lañ moom mu tuub nekk jullit est-ce que dafa andi fracture ci kër gi déedéet andiwul noonu ak parce que c'est ça la Casamance c'est la tolérance c'est l'acceptation de l'autre ak nu mu mel ak fu mu bokk faut pas que Macky Sall nous parce que c'est un homme fondamentalement haineux il gouverne par la haine ku àndul ak moom es bon pour nous liquider nañu jàppanteeg ak fu ñu mën a bokk parce que tey su problème amee Dakar ñii ñëw fanaan buntu kër Ousmane Sonko ne jaral na leen seen bakkan c'est pas des Casamance yéen waa Casamance gënu leen ma bëgg man que ñeneen ñi dëkk Dakar Saint-Louis Diourbel Kaolack feneen ak feneen ñooñu sax ñoo ma gën a bëgg que Casamance donc il faut pas que Macky Sall ñu tombe dans son piège. parce que il est prêt à brûler le pays à créer des guerres à fexe ba nit ñi pour moom mu mën a de ce chaos pour toog Sénégal buñ ko ko nous n'avons de problème avec personne tous les Sénégalais des frères et des sœurs entre eux benn problème la ñu am te mu wax ko mu leer la Casamance a un sérieux problème avec Macky Sall te moom lay ci moom cette haine nag lan moo mooy depuis qu'il